قد جاء نصر وأنتم يا أحبائي
وممن بيت ممن قد جاء مثله وممن بيت ممن قد جاء مثله
ورحمة الله تعالى وبركاته ñuy nuyu bokki julit yi teew ci ronu tànt bi di leen ñaan njéggal rek tuuti rek yaakaar naa ni dootul gudd waaye wax nekkul bët waaye dana fattu te gàmm yépp lañu fonke xol waaye rawaat na gii ñu ngi nuyu kilifa yi toog ci barab bi doore ci Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Alxaaji Mansour Sy mu Seydi Alxaaji Malik waaw Safiyataani ok
ñoo ma jox fukki junni yi nee na ñoo ko def ci rasulullahi jox la skay ñu ne yaay safiyataani safiyatu bintu cheikh alxaaji abdul aziz si safiyatu bintu cheikh alxaaji habib si ñu ne ñooma décoré fukki junne ci galagu rasulillahi te tàmbaleeguma décoré ñoom daaw góor it fukki junne te tàmbaleeguñu xamuloo ne daaw góor borom baatin lu mu tëral mu barkeel man li ma jàng barewul mais damay xalaat ci daairatul mutamassikina ren Sidi Aboubacar dafa ni dama dénk jàng yi ñaari yaay safiyi te safiyatu mooy firi lu sell ma xalaat ci al azizu mooy firi lu sell al habib mooy firi soppe kii ko sell kee ko jur kii soppe borom bee ko jur ñoom ñaar ñëpp nag xaaju Maalik ga leen yor fa tabaarakallah ñu yëkkati teraanga jëme ko ci man sant naa ci li ma ci sante du xaalis bi waaye tubaab dañu ne la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne waaw déeyo bi kay moom nañ ko ba rek te déglu mu mën joxe yéen dana jàq liñ joxe sa doomu sëriñ nga ameel ko hadiya mu décorer la neex na ci sama xol yal na ko yàlla nangu encouragement la kon xam naa ni ñuy def mooy ma ma denc ko rek te tàmbali lu ma waay dimbalee lu dul déglu dégloo ma ko gënal ndax gàmmu gi sos dara xajatu fi sof rekk fi sës sos dara xajatu fi sof rek moo fi sës sos nañu ba raase waaye am naa droit sof ci li ñu sos ba noppi Seydi Hadj Malick Sy ñu ngi lay nuyu di la ziyaar daanaka bu lu woon ndigal mën nañoo bañ a wax tey ndax suñu xol yëngu na bu baax a baax a baax yëngal nga xolu ñëpp tabaarakallah jërëjëf si mataana allahu bi tuuli baqaikum yal na nu yàlla xiiwale seenug yàgg fi bi sixatin jayidatin nag ak wér gu mat sëkk ak njabootu jullit yépp nag ku teew ci tànt bi ak ku teewul luñ jaamu yàlla daaw ba ren ak yi ko jiitu yàlla na ko yàlla nangu fa kastal bu nu mas a def yàlla na ci njëggalug yàlla sotteel ku ci am jàngoro yàlla na ko yàlla saafara ñett nag dafa neexul a gëm ñett neexul a gëm waaye ku ne xam nga sa morom waaye ñett yëf yi may bëgg a wax neexu la gëm yàlla may la doom nattu la mu bon sa mbonuk doom neexu la gëm waaye bi ko gën a jafee gëm nag mooy sa wilaaya ak jëkkër bi ko gën a jafee gëm nag mooy sa mbaaxu wujj bëggoon naa ngeen déglu ma de dama wax ne ñett neexu la gëm waaye ku ne xam nga ku la man yàlla may la doom nattu la doom ja bon sa mbaax sa mbonuk doom neexu la gëm waaye bi ko gën a jafee gëm nag mooy sa wilaaya ak jëkkër am jëkkër mu am wilaaya nga gëm wilaaya ga ak a jafe bi ko gën a jafee gëm nag mooy sa mbaaxuk wujj am wujj wujj wa baax nga dem ba gëm ne wujj wi baax na waaye billahi bari na kuy wujjeeg njabootu tariqa bi te xam nga ni ñoo la raw waaye sa mbaaxuk wujj neexu la gëm waaye loolu nu sante ko yàlla te bañ koo bàkkoo ndax jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaafus dof yi ki ci gën a dof mooy ki ñu tëggal tama mu fecc xam nga lu tax yi daje ba mu fecc da ko waroon a waar ndënd mi garab la woon gu doon dund dafa dee moo tax nga am ndënd der bi da doon dund dafa dee moo tax nga am der boo ko foore galen bi ñu koy tëggee garab la woon dafa dee moo tax nga am galen ñett yu dee ñu dajale la ko dóoral la ko nga dóor sa tànk dakkase santoo yàlla te wéeroo naa ñu tuuti waay noonu ñu tuuti faqablu fattablu fattablu jildun faarixun wa tamiinuhu yartaacu minhu wa yafraqa al insaanu tama kuñ ko tëggal waruloo woon a fecc da nga waroon a tuur sarangooñ ndax yi daje ba fecc loola dafa dee la leen rey du la fi bàyyi la leen rey du leen fi bàyyi ànd ak ku yàlla rus am na solo waaye roy ca lam def ba yàlla rus koo ko ëpp solo ànd ak ku yàlla rus am na solo waaye roy ca lam def ba yàlla rus ko ma am solo te ku am kilifa di tiitaru ci moom war ngaa góorgóorlu ba muy tiitaru ci yow. nañ kilifa yu baax jàpp nañ ci sunu loxo ñoo ngi nuy wan yoon ñoo ngi nuy jàngal dox nañ jéem a nukkus nukkusi waxtaan wi du yàgg tey dama koy fëkk rek cëppeel ko waaye sant yàlla war na ñépp waaye ki mu gën a war mooy ki doon dégg ki doon dégg ngóor si ba yàgg muy dégg góor gi ndax am na ñoo xam ne ba ñu naan laan ngóor si foofa lañ dee yegguñu ci góor gi sant yàlla war na ñépp waaye ki mu gën a war mooy ki doon dégg jànq bi ba yàgg muy dégg jeeg bi am na ñoo xam ne ba ñuy dégg jànq bi fa la ñu deewe àdduna ku ci bëgg a noppalu te bëgg a am ciir ci yàlla bunt yi bare na mais ñett a ngi boo fexee ba mokkal ko rek mën nga am ciir mbooloo mi li muy bari bari ñetti nit lañu ëpp ko yéesu ko su ma ci paree ku ci gis keneen na ma ko wan ku fi toog koo dajeel yaa ko mag wala moo la mag wala yéen a maase kenn ku ne ak ni nga ko war a xoolee rek pour toggin bi jekk am waxin wi leerul dama ne tànt bi ku fi toog ñi fi toog ñëpp ñetti nit lañ ëpp ko koo dajal jox ko loxo benn yéen a maase wala yaa ko mag wala moo la mag ñett ñooñu toog ci tànt bi ki nga mag suñu la ne luy suppré ci waa ji moo la gën nga ne maa ko mag li ma jot a may yàlla moom yeggagu ci kon moom a gën fuuf kooku jàll ki nga maaseel boo ko joxee loxo fasal ci sa xol ni moom a gën bu ñu leen lu tax nga ne man sama may yàlla wér na ma te moom bosam ump na ma ki la mag soo ko joxee loxo neel moom a gën su ñu la nee preuve nga ne lim jot a topp yàlla defaguma ko ñett ñépp nga mën a jàmmook ñoom ku jàpp ne yaa gën xaj-xaja la gën man don na annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu min duni irtiyab noo kawe kawe doo sutu xeer te xogg li ku bare na xogg li ku bare te xaw ma kuñ ko royee waaye du sayiduna muhammad te billaahi dañ koo seetluwul mais réy ngi ci sun xol yi li ëpp ci nun bokk xam nga lu tax tey la lan samedi doo nag le dimanche ëllëg ci onze heures ku ci nangoo war mbaam jaar ci marché teen jigéen mbaam mbaam sëf ku ko ci nangoo war ëllëg jaar ci marché teen jigéen ni yëkkati baaraamam rasulillahi daan na ko war te mooy sangu siidu bu jot wa xiblati shuhud te yonent bi nee na laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min kibrin lu toll ne atome wala neutron wala électron wala lu ko gën a tuuti ku ko yëg ci sa xol ci ak rëy doo dem aljanna moo tax suñu bàyyi bu baax ba sidi xaaji mansour radiallahu anhu ca daaliyam bu rëy ba mu ne mu ne mu ne mu ne laa shay'a fi diini baada alkibri afsadu min xeqdin wala taku ahlu lfadli xussaada sidi xaaji mansour nee na amul lenn lenn lenn ci diine gannaaw rëy lu yées coxar ndeke coxar li muy bon bon bon bon rëy ko yées ndax ki rëy dafa soxar ba pare rëy teg ci boole ñaar yépp Seydi Xaaji Mansour ne ñi yàlla jox ngëneel wër di leen añaane li leen yàlla jox du métier xam nga ko bëgg a nopp lu mu lay def da ngay fexe ba leen ni kenn bañ a doon sa problème ku bëgg a noppalu da ngay fexe ba lenn kenn bañ a doon sa problème mboolem li yàlla bind nit ñi ñoo ko ci gënal nit ñi jurit yee ko ci gënal jurit yi yonent yee ko ci gënal yonent yi yonent bee ko ci gënal loolu rek laa bëggoon a wax départ waxaaza maa xaaza laakin laa yumaasalu min tawaaduin wa xushuwai lqalbi warratan
هذا لكن لا يمثل بالتواضع وخشوع القلب والرجاء وهذا ما هذا لكن لا يمثل التواضع الواح خشوع القلب والرجاء رادانهم لا لا لا مولنا تواضع واح وخشوع قلب ورجاء وآمر ثم آت أصدر ازدان دودانه ثم العدل يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ما يقول يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ظلم يا إمام ظلم ما إمام ظلم ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن لخطكوا محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما من محمد لمن ما أدنى أدنى أدنى mooy maami yeneen mooy maami yeneen mooy maami yeneen mooy maami yeneen loxo ca kaw adduna mooy maami yeneen seen loxo yi ca kaw adduna mooy maami yeneen loxo ca kaw adduna mooy maami yeneen من يجاوز سن أبي بساد في الأواحد ما هذا
Thank you.
mbooloo mi ngeen dal ñàkk tuuti Seydou Aboubacar ne mi ngi jéggalu nit ñi mais ñi toog fii ne ma jóg taxaw taxaw joxoñ leen ne ñi toog fii mais dañoo paas ñëw ba fii ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag du pour caaxaan waaye dajaloo woo ñu fi pour fecc wala pour caaxaan bu ngeen dematee ci jàng bu woy a neexee bu ngeen ko bëggee manifester waaye génne leen seen xaalis ngeen sarax ko ñuy way kay moo gën a gaaw waaye nag jóg di fecc waaye déedéet kaful de reetaanul itam waaye fecc gi amu fi solo amu fi place indi wuñu fi dajaloo wuñu fi
mbooloo mi may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti Sidi Aboubacar wax na dëgg de iltizaz am na waaye fecc bokku ci bànneexu ci woy wi yungu am na waaye fecc bokku ci lamb sa poche saraxe bi mu wax nag wax dëgg ñun liñ ñu sarax mën nañ cee dépense ay fan waaye boobu gën ci fe fite sukat Sidi Aboubacar nga baal ma man mënewuma ko waaye ma gërëm ñoom yaay sofi ci liñ def ndax màggatum baykat Sidi Aboubacar ne naa leen ñaanal ndax dañ fee nekk ak seen nawle te ñëpp joxewuñu kon ma gërëm leen ak ñi joxewul ñëpp kon yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla fay téere Seydi El Hadji Malick si bii daf ci ndar képp léppi rasulillahi leer ga ba leer ga dib liir wax ñu màggi nu liir ba wax nu jaari nu leer ga xaaji malik nee na lu jëkk rasulillahi di jëmm nekk na leer lu yàgg sunna leeral na ci jibrilul amin dafa ñëw ci muhammadul amin jol makka ni ko jibril ñaata at nga am jibril li ko takkuma samay at waaye am na lu ma mën a seede ci lë- as lëf ci samay at moo di am na benn biddiw daan na feq ci doon arash biddiw bi bu masaan feq balay suux am soixante-dix mille la bu fekkee balay suuxaat am soixante-dix mille la gis naa ko soixante-dix mille fois jol ma ko xool ko ni ko jibril gone nga de ana dalika alkawkabu man maa doon bidéew ba alaaji malik leer googu jaar na ci ay kiiraay fukk lañu ak ñaar qudratu minnatu izamu rahmatu saadatu karamatu manzilatu hidayatu nubuwatu taatu ribaatu shafaatu kiiraay ya jeex xaaji malik ni kiiraay bu njëkk ba fukki junni at ak ñaar ba ca topp fukki junni at ak benn ba ca topp fukki junni at ba ca topp juróom-ñeenti junni at ba ca topp juróom-ñetti junni at ba ca topp juróom-ñaari junni at ba ca topp juróom-benn junni at ba ca topp juróomi junni at ba ca topp ñeenti junni at ba ca topp ñetti junni at ñaar benn kiiraay yi jeex alaaji malik ni dugg na ci ay lu ñuy tuddi alxijaab ay baxra ay boxoor nee na baxru mahabati baxru nadrati baxru rahmati baxru qudrati baxru karamati baxru lmaarifati baxru shafaati baxru lhidayati baxru ljuud baxru lxikam nee na kiiraay jeex alaaji Malik ni ma ngay bëgg a am imaam ndax mi ngi bëgg a nekk nit Mouhamad Abdoulaye ko jur Cheybata jur kooku waaye Cheybata du tur ñu ne lu tax ñu tudd ko shaybata te muy firi béjjaaw Seydi El Hadji Malick ni wulida wa fi rasi shaybatun dafa judduwaale béjjaaw ñu tudd ko shaybatal hamdi nee na Hachim a ko jur waaye Hachim du tur ñu ne ko lu Hachim di firi mu ne ab soos góor gi Hachim dafa tabe woon da daan defar soos teg ca xeer ya gàll cay mburu gaañe di fa ndékkee tudde ko borom soos ba عمر العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسلمون عجاف هاشم عبد مناف قصي كلاب مرة كعب لوي غالب فهر مالك نضر كنانة قزيمة مدركة إلياس مدر نزار معد عدنان على أجمال من رسول الله إن كل لم أي مامم بو جيجي عدنان لغي وخويرة مام يقول كوكا وخ مام يجيجين من بنك الموخ لما بيجيجين فهن فاطمة سلمى وعاتكة حب وفاطمة هندا لهن سن وحشية بنت الشيبان وماوية بالواو سلمى وليلى عد لم تلم منهن جندلة لا تنسى عاتكة وبرة ثم بنت سعد ذي الكرم سلمى وليلى رباب سودة ومهانة ومهجد عيل أبيات اللمر لجي وعى وعى يعي يعي نجي من لنجر وشوى يشوي الشيء alaaji malik ni bul dem aminatu bintu abdi manafin aminatu bintu wahab ibnu abdi manafin ibnu zuhrata ummu lmustafa alalami ibnu kilabin waqul fihi intisabuhuma atikatun xiile hindun ummu wahbihi mi topp ko topp ko dama guddee dama koy sàqal mi cëppeel ko doore ci waxaaza ma xaaza ma dem de waxaaza làq na moom rasulullahi maa xaaza la mu làq ci mayaki taara ki jikko yu rafet muy li xarfu listidrak ne laakin li fi nekk laa yumaathalu deef lu mën a yemoo ki tax nu tànt bile min tawaaduin ci toroxlu wàcc modestie simplicité ci rasulillahi la yem ma joxe ci preuve génn na benn waay dogale ko hediyaal ko ab jàtt mu ne kan moo ma koy reyal ku ma koy rendil sidna abubakar ni ko man mu ne kan moo ma koy tenqil gannaaw ba mu ko feesee sidna omar ni man mu ne ku koy fees sidna usman ni man mu ne ku koy togg sidna ali ni man njool makka ni waa alay jamul xata bi kon nag ma ñëw taxani mat ca la simplicité yam dem taxani indi gaañee togg xam nga kilifa yi luñ ñu rawe woyof ak toppatoo luñ war a toppatoo Seydina Omar ibn Xattaab parenthèse la bi mu nekkee amirul muminin daawul nelaw guddi guddi lay jóg ànd ak Abdullah ibnu Dinaar di wër bés muy toppatoo responsabilité yàlla tekki loosam ba njël jot benn sàmm ne doreet ci kawam jiital ak jur mu ne abdullahi ibnu dinaar toppatoo kii ba xam ndëngte gi xew ci àddina mbaa duggul ci moom kooku dab ko déey ko ni ko jaay ma gàtt bi sàmm bi ni ko moomuma ko de fa inni laa amlikuha mu ne ko jaay ma ko rek soo demee ni borom tillee lekk na ko mu ne ko mën naa ko ne tillee lekk na ko mu gëm ko waaye fa ayna allahu bu boobaa ana yàlla xam nga looloo ñu manqué ka jóge ca Tëngéej yorob oto deux heures et demi jot ci guddi muy dawal toll ca croisement Cambérène yëpp ne alkaati yi wàcc nañoo gendarme yi feu rouge bi rouge xam nga bu yëgoon ni yàlla koy xool du burle waaye ñeg ñàkk ga mu ñàkk ba xel yàlla xam ne gendarme yi wàcc na mooy tax mu burle bu toll la koy jàll rek mu ramassé ko yëg yàlla googu ci sunu xol moo nu manqué bala maa continuer nga baal ma ma jottali nuyoo ñoom ndongo du kuré ñi jóge ba Côte d'Ivoire ak Mamadou Ndiaye Male boo ñu fa yóbboo dañ ñuy toppatoo façon boo xam ne jëmm yàllaa tax ak barke Sidi Hajj Malik ak sa barke yow mañ fa yóbbu te luñ la defal nga téen ni daa ko yeeyoo ko ëpp naa def jërëgeen jëf bi ci des Boubacar Ndiaye mii di bokkaar ñu ngi koy sant suñ wàllu bopp ñun taali bi yépp wër na jox ñu teraanga jëmm yàlla tax mënuñu ko pataaral amuñu dara ji juñ ñu koy defale seen barkee tax kon ñu wax la ko seereel la ko ngir jëmu yàlla fu ma toll woon ñàkk yëg yàlla ci li nuy def kon nag dootuma gërëm nay ñaan rek waaw sëñ bi nee na bu ma gërëmati nay ñaan rek kon yàlla na yàlla fay ñépp rek yàlla na yàlla fay ñépp ma dem de wa xaaza làq na moom rasulullahi maa xaaza la mu làq waaye laakin la fi nekk laa yumaasalu déeful mën a yemook moom min tawaaduin ci toroxlu wa xushuwaayil qalbi ak toroxlu xol te ragal yàlla laal ko war ratami ak kersa jël ma ko ëpp ñëpp kersa ndax alxayaau min al iman alxayaau wal imaanu qurina jamian ida rufia ahaduhuma rufia al axar kersa ak ngëm yàlla la ñu lënkale boo ci am am morom ja boo ci ñàkk-ñàkk morom ja ba tax xayrul bëri yéti ko amoon kersa la ñàkk kersa nag ak feebar feebaru xel du benn léeg-léeg nit sañ loo xam ne ñàkk kersa taxul booba dafa kannasu dafa dof waaw dafay tax nit di sañ yenn yi ñàkk kersa ak dof du benn dëgg bu jotee mën nga ko wax te bañ ca am kersa te yàlla tax ndax fa inna allaha la yastaxi min al xaq yàlla du bàyyi dëgg ba di ci rus kenn te du ko wax kon koy waxal yàlla mën ngaa wax dëgg ga waaye lu ko jarul it ni nga xotti ci suturas gor yépp it jaru ko nit day am kersa alxayaau min al iman kersa ci ngëm yàlla la bokk baax na ci ñépp waaye ci jigéen ak gone la raw tabe baax na ci ñépp waaye ci borom am-am la raw maandu baax na ci ñépp waaye ci borom xam-xam la raw jub baax na ci ñépp waaye